moom day koo xam ne nii ku nekk te jullit rek war ngaa gis mbirum war ngaa gis sa ci mbirum boo dee jullit rek ndax daa bind wax ne muni ilayhi xidmatun qad laazamat rawdatahu ila alqiyaami atumat nee na man liggéey woon naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ab boo xam ne nii tiyaabaam xajul ci àdduna ba ba loola ma nga ci raw ba yowmal xiyaam rek lay génn mu daal cee teg ne rabiya anni sibtuhu jilaani alayhi ridwanu allazi alaani fitam bi ñuy wax Seex Abdul Qaadir Jeylaani liggéeyal naa ko balaq ngërëmam xanaa kon ku di qaadir ku ne war ngaa gis sa mbir ci mbiram mu doon ne rabiya anni sibtuhu abu xasan alayhi ridwanun yuxallidu xasan abu xasan assaasi bi liggéeyal naa ko balaq ngërëmam xanaa kon ku bokk foofa war ngaa gis mbiram ci mbiram sa sa mbiri ci mbiram mu tekkee ne radia anni sibtuhu tijaani alayhi ridwaanu mubinil jaani Seex euh, naa ko ba mu ba mu ba mu gërëm loolu tam ba tey di tegtal képp koo xam ne nii ak Tijaan nga war ngaa gis sa mbir ci biir mbiram nga xam ne kon Sëriñ Tuubaa mbiram day boo xam ne nii jullit yëpp dañoo war a maase gis seen bopp ci biir ndax daa yoru tariqa moom la sëñ Abdoulaye daan wax ne daa yoru tariqa waaye dinaa ko gën a leeral ba mu gën a leer bala maa commencé thème bi waaye lii bi mu ko waxee ba noppi dafa am lu mu ca teg ngir bëgg nit ñi gis seen mbir ci mbiram ngir ñu am ci ci lim la ñu fal ilaahu mustafa gayra jaza kama taqabbala wa waadan an jaza mu ne suñ borom bi liggéey bu bu ma ko liggéeyal euh, faydaa ngi tege nii mu ne nga kon lu nangu la ba pare mu ne faydaa ngi tege nii mu ne salaatu man karamahu yalqaani ala allati duna almira alqaani mu ne maa ngi julli nag ci yonente bi sallallahu wa sallam mi nga xam ne nii teraanga yi xam ne nii moom laa war a am ci loolu ma liggéey amul ban lu warante ci jot li tax mu nit ñi gis euh, seen bopp ci mbiram ba mën a njëriñ ñu am ci loolu loolu man maa laaj waaye maay tontuwaat bi mu waxee loolu ba noppi nit moom léeg-léeg boo am day laaj boppam di laaj nit ñi man nañ ne waaw koo xanaa kooku dafa bëgg ñëpp ñëw ci tarixa mu ne la déedéet mu bind fii ne fa kullu muridin yuridu al-uruba li hadratillahi wa lam yahida sawa'un intama ila al-jilani aw intama li ahmad at-tijani aw li siwahuma min al-aqtabi id kulluhum qat'an ala as-sawabi mu ne góor bi boo mën a jël rek baax na boo mën a jël baax na waxuma la nga ñëw jël wëndu murid jëlal wëndu tijaan wala nga jël wëndu xaadir wala beneen wóobu boo mën a ndax ñooñu ñëpp ñoo bokk yoon wu njëriñ fi ñu ñëw mooy yëngu ci yàlla tàqala a seytaane ci yam euh, ci yow laa yuridu ki nga xam ne moom dalay euh, dalay tarbiya amul benn intérêt ci yow bu dul faj la ba nga wóor parce que maladie yi ñaar la maladie yi nga xam ne moom lañ xam ci yaram ak maladie xol ñoom dafa am maladie xol yu ñuy xam ci nit tàkkale ko saytaane tàkkale ko bànneex tàkkale ko àddina tàkkale ko bakkanam ba mu mën a jàkkaarloog suñu borom ñooñu nit loolu lañ lay tàggat bu bu bu bu fexee ba que ñeenti ñàkk ko a éliminer moo tax ngay ñëw mu mu wan la aw yoon jàppale la ba nga mën a éliminer sa ñeenti noonu yooyu euh, baatu murid nag ci laa bëgg a dellusi murid la. xam ne euh, soufisme yëpp ñoo ko maase di ko jëfandikoo mm, euh, tiijaan yi murit la wax beneen tarixa bu mën a doon murit la wax murit mooy ki nga xam ne xam na ne ñeenti noonam yooyu mënu ko éliminer mu fekk ki nga xam ne éliminer na ko ba pare nag mu làkk ci moom ngir mu war ko ba mu chose boo xam ne ni dina fa mën a jaar ba éliminer ba éliminer Euh, ay noonam muy saytaane bànneex bakar ak àdduna kooku moom la ñuy tudde murit moom moo gën a tuuti ci ci daraja yi nga xam ne nii moom la su yi am nga xam da ngay jóge ci murit dem ci leneen dem ci leneen ba keroog ngay nekk xutb yooyu nag da faral di gis ci ay mbind yu koy yu koy kont di wax yooyu terme kenn gisu ko ci alxuraan du jar soow parce que tam bi tàmbali ji waaye alxuraan moom su fekkee loo ci gisul doo ko lu baree baree bari bari doo ko parce que yow sa néegu bopp sax nga xam ne lu fa dugg yaa fa dugal am na yu bari yoo xam ne nii la ca nekk xamoo ko te yaa ko fa dugal rawatina néegu li nga xam ne ñu ngi koy sàkku pour nga ñaanal ñu ko euh, ndax ku wax ba jeexal da war a conclure ñaan ton bi sax xaajaluma ko parce que amuñu temps waaye sama ñun murit suñuy teggin mayuñu sëb sëriñ toog ngay ñaan moom moo war a ñaan waaye nag sañ ma ma wax liñ bëgg nga ñaanal ñu ko liñ bëgg nga ñaanal ñu ko mooy yàlla teqale ñoog seytaane ak kenn ku ak lépp lu bon te teqale googu nekk teqale goo xam ne lii duutuñu teqalee tey moom mukk te takkale googu sëriñ Touba ak képp ku baax ak lépp lu baax te takkale googu nekk takkale goo xam ne nii ak teqaleet yi duutu ca am duutu ca am euh, yoon ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu loolu bi jaay Cheikh Khadim waay sati sadil Mahmoud sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa